asalaamaaleykum mbokk spectateurs. yi dal leen ak jàmm seen émission sàmm sunu alam tey ñi ngi fii ci jardin botanique bu université Cheikh Anta Diop nar fi dalal gan goo xamante ne bu ci kanamee dinañ leen ko won tey thème bu ñu jël mooy les gazelles oryx ñu leen wax gazelle dama fii Sénégal ñu leen tuddee kooba coow li nag jub depuis le 3 juillet moo ne jiitu woon na le 3 juillet parce que c'est le 5 mai si le ministre de l'environnement

mais yi dafa nekkoon en voie de disparition mu am benn noyau bu ñu élever en captivité loolu moo jur li ñu koy mu nekk benn programme mondial ñu jël ay pays jox leen ko pour ñu élever leen c'est-à-dire ku mu neex mun nga wut sa réservoir hein, privé yaa ko moom mais du ku mu neex aussi ñu la jël rab bu la neex dugal fa doo fa dugal gaynde boo fa bëgg dugalee gaynde wala ñay il faut yoon ñëw laaj la lii mooy lan ndax am nga kayit ndax fi nga ko sécurisé na c'est pas parce que ces gazelles sont inoffensives que waruñu la kayit suñu constitution moo ne les ressources naturelles appartiennent au peuple de gazelles yi dafa ci ressources naturelles non seulement dafa nekk bien yoo xam Sénégal mais espèces de dañ leen au niveau international donc képp ce xam ne nga nekk ci monde bi am nga ci droit ñu nekk dëkk boo

ñooy li nga xam ne sénégal yi ñoo ko moom parce que tey gazelle yooyu mu ngi mel tey nga dem ci àll bi wala nga dem trésor publique dem rek sëq fa xaalis génn jox ku la neex noonu la war a jàppee gazelle yi te loolu nekk loo xam ne wàllu gouvernance la nekk loo xam ne lu yoon la. demoon nañu seeti euh, Lamine Diagne bi nga xamante ne yor na kuréel boo xamante ne day sàmm lépp li nga xamante ne rabu àll la waxtaan seex moom waxtaan ak koo xamante ne tam muy kilifa. ki li fa nekk bokk si Y'en a ñëpp xam ko si côté activisme. Abdou Karim Sall ministre de l'environnement fote nga maanaam def nga lu jéggi dayo nit nag bu defee lu jéggi dayo dafay am auteuru maanaam dafay am maanaam xaw ma nu ñu koy waxee ci ci ci kii nii mais màggaayu taxaw tekki ay ndombo tànkam ba pare ba pare jéggalu sénégalais yi ca loolu lañ la doon xaar non seulement defuloo ci yooyu def gaaf gu ne weng ba pare taxawaat di sénégalais yi naan leen li ma def nii dama ci am sañ-sañ. yu mel def en tant que acteurs yi nga xamante justice environnementale moo ñu intéressé que dem déjà fii au niveau interne ñu dem tribunal yi wax fa suñu xalaat citation directe parce que infraction pénale et la faune sauvage est protégée par le code de la chasse et, euh, et de la faune. La plainte est réelle euh, le ministre ministre bi nañ ko devant procureur mu mu wax li nga xamante ne moom waral lii procureur aussi dañ ko invité mu ubbi enquête léegi nag moom xam nga procureur moom mooy le mettre des poursuites moom mooy xool ndax day def wala du def mais de toutes les manières ñun sunu sunu rôle moom mooy que ñu saisir ko Des plaintes bi pare na dañ ko jox teg si table am n'est-ce pas pour mu def rôle am au-delà de de ça mooy loolu aspect tribunal bi fii interne dinañ dem ci ambassade yëpp nañ fa déposer la lettre de dénonciation yow mi dinaa la ko jox bu ñu ci ambassade yi dinañ ko déposer au niveau de l'Union internationale pour la conservation de la nature UICN bi nga xamante ne dafa waroon joxe AVM ci opération bi nga xamante ministre bi moo def en plus dinañ dem euh, lu même par exemple CITES dinañ dem ci convention yi nga convention de Bonn yi nga xam Sénégal bokk na ci yëpp te dañuy euh, jéem a préserver biodiversité fépp fa nga xamante ne si monde bi comme au niveau international comme au niveau interne parce que animaux yooyu ce sont des patrimoines mon euh, ce sont des patrimoines mondiaux benn rek moomu ko Sénégal moomu ko mais adduna bi ñoo ko moom parce que dañuy waaj tukki si adduna bi. ba tax ñun forum civil bi mu amee suñu section bu Ranérou def déclaration waaye yemuñ ci dañ ci jógee ñu bind quatre institutions internationales doo njëkk bind ONU environnement mu tontu ñu ñu bind UICN ñu ngi xaar réponse am bindaat nañ yeneen ñaari lettre benn bi ñu ko adressé secrétariat exécutif bu convention euh, sur la diversité biologique beneen bi également ñu ko adressé directeur général également bu bu bu bu bu CITES. Pa Assane Diop nekk koo xamante ne da doon yëngu si wàllu environnement nekkoon directeur des parcs parc national bu Hann. braconnage bu dee gën a grave dafa am degré de braconnage nga rabis, rab bi ci forêt crassée ci parc national ci réserve de faune wala ci zone une zone interdite degré de d'infraction yi ak day day day différé est ce que la faisabilité était normale et autorisée C'est ça le problème C'est un problème programme mondial le euh, programme n'appartient pas seulement au Sénégal le Sénégal aussi ne peut pas se permettre de jël rab yi à tout va di joxe di dugal di joxe di dugal test. Euh, dañ defe ne rek la y a les poissons y a les fleurs y a les sous-produits y a les sacs y a les succites en, en, en peau de crocodile en peau de d'animaux sauvages tout ça là quand si ferme les frontières ben exportation dem ben dugg si c'est grave ah, et, et ça va suivre euh, ak day am dilatoire ci financement dilatoire bañ fo jógee dem nañ tém ci oustaz Alioune Sall mo wax ñu xalaatam rab buñ la juróom fukki million mo koy jënd <laughs> do do du rab wu ordinaire moo tax ki koy jël war naa am ay sart yu leer yu mu ko jëlee fa koy jëme war naa am ay sart yu leer yu mu ko fa jëme lu ko ba ñoom duñ dund fépp duñ dund fépp duñ leen jële ci népp loolu moo waral coow li ci nekk sunu borom nag bi mu nu teeralee la bëggoon nu teeral rabi àll yëpp yëpp nag soo gisee tubaab yi di mën a teral nit ñu ngi koy jàng ci taral rabu àll xaj bi dëkk ku tubaab àq yim koy jox tax na bu ci jógee rek nit ku mu gis jox ko àq nun ñu dul jox xaj yeeg muus yeeg yooyu àq duñ mën a jox kenn nit àq kon loolu daal cib tënk mooy gisunu lislaam ci rabi àll yi rawatina kooba yeeg njamala yeeg ñi mel ni ñoom dem nañu aussi seeti Pape Mbodj bi nga xamante ne moom dafa am site sur l' environnement environnement rek soxal ko mu nekk benn activiste sur l' environnement. des oryx ñoo dem mais est Sénégal xam nañu ñaata espèce la ñu muy faune beeg xool carrément les oryx euh, xool li nga xam ne tey jii mooy euh, àll bi li ci nekk yëpp ñu xam ñaata la ak ban ak ban la loolu foog ñu xam ko maintenant loolu nag. Euh, il est temps que nous ayons un bon ministre parce que li xew ci li xamante les ORIX le ministre de l'environnement dafa wane carrément ne mënu ko gérer mënu ko xamul environnement nga yëkkati 500 millions ne da ngay dem ay communication ci plastique na bàyyi plastique yi te wax ci les Le transfert bi nga xamante ji moom moo ministre de l'environnement nga war a sauvegarder l'eau, na koy def ba loolu le transfert le protocole bi ñetti nit nous. te loolu yëpp moom ci le ministre le bénéficiaire et le directeur des parcs nationaux Nous ñooñu ñoom ñoo coiffé protocole bi Jacques yaakaar il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut Nous avons incité incité pour nous démissionner parce que ce mu def le Sénégal mën na ci embargo parce que le Sénégal de signer des conventions internationaux sur la biodiversité ak yeneen ak yeneen. ñun forum civil à l'interne li ñuy parce que comme à réew à la alalu réew n'importe comment ndax biñ koy joxee état bi audit pour xam ndax réserve yi ñu joxe war nañ ko recevoir waru waruñ ko recevoir est-ce que état bi def na étude d'impact environnemental ndax bu defee loolu yëpp également critère bi gën a am solo mooy yan sénégalais yan organisation yan association ñoom capacité pour recevoir rabu àll yooyu yooyu mooy suñu question ba tax fi nekk ni dañu gën di interpeller parce que boo xoolee direction euh, des eaux et forêts bi nga xam ne mooy gardien wu convention wu CITES kenn dégg ko ba alors que lii mbiram la donc ñun forum civil tam ñu jug taxaw ne combat bi duñ ko rek def un combat national mais nañ ko def un combat international ba fi may wax yow nous avons contacté avec un avocat sénégalais qui vit à l'extérieur pour que ñu seet au niveau international naka la ñuy porter plainte ak au niveau national naka la ñuy porter plainte nous sommes en contact avec notre avocat sénégalais qui, vit également à l'extérieur. Mais également au niveau national, nous avons utilisé l'article L107 du Code de l'environnement pour inciter les collectivités locales, les collectivités territoriales qui sont dans cette zone-là, mais également les associations qui sont dans l'environnement. Il faut que tout tout parce que les associations bëri dégguñ leen dafa mel animaux yu beaucoup ci écologie ou environnement. après le pétrole l'or le diamant, euh, la drogue, c'est les animaux. C'est-à-dire, peut-être nous xamul l'eau, mais en Afrique de l'Est Afrique du Sud Australie États-Unis Angleterre tout ça là ñoom fu ñu rap. commerce rap. On ne peut pas comprendre c'est une économie la rareté fait la différence quand une chose est rare devient plus très chère. une constitution article 25 monnaie, les ressources naturelles appartiennent au peuple Dans cette constitution également dafa le gardien de la constitution moi le président de la république bu fekkente ne mbir mi nga xam ne dafa concerner espèce boo xam ne espèce internationale la ñu teg ko nous avons ko teg le président de la république waxu ci nañ jàpp ne kon nañ kat président de la république daf a na xam ne nekkul loo dina rafetal le Sénégal à l'extérieur ba que nous ñuy interpeller président public mu àddu ci parce que nekkul loo xam nous lu ñu war a bay nous la wala lu ñu rek mu Macky Sall ba mom moko tabone jox ko ndomba tank yoy dénk ko secteur bobu non seulement mu def ci gaaf gune weng ba pare taxawat ak sénégalais yi ko falone saaga leen kon je pense que ni. ministre bi saaga boobu ñun ak sax président bi yëpp la ko boole. ah yaakaar naa ni yabeelam warul woon yegg ba ci président de la république parce que bu nee maa tey yow mi ma dénkoon li ma dénk ma def ci lii maa tey kon waa ji yab na Macky Sall xaw ma lu waral nag mu yab ko. ñun sénégalais yi la faloon yow président de la république ñu ngi lay wax ci nu mu gën a gaawee nga indi si nga àddu ci lii tekki ndombo tànk yi. te beneen yoon bo fay tegaat nang fa teg koo xamante ku ko jàng la ku ko xam la actuellement dañ naan Sénégal am nañ 2500 euh, espèces végétales li ñuy wax gantiax 2500 espèces bu dee ci rab yi li rabu àll yépp yuy dund hein commencé ci insectes yi ba ci éléphant euh, am nañ ci 4330 te defe naa lu biodiversité la au niveau euh, du Sénégal pour jox la rek misal bu ndaw li la zone des identifié nañ fa 80 espèces d'arbres c'est-à-dire ay grappes boo jëlee toutes les forêts européennes réunies rare na nga dépasser 100 espèces d'arbres avons dalay lay la ñun biodiversité dafa takku parce que nous dañoo nekk zone biodiversité bi dafa am solo la zone tropicale rabu ali li ñu al rabu al, rabu ban njëriñ la am si ñoom. rabu àll yi dañuy contribuer ci équilibre écosystème bi parce que rabu ali yi ñoom rek nekkuñu fa ñoom ñoo fay nekk ak ay garab ak également environnement bi leen wër léegi day ñoom dañuy contribuer ci équilibre parce que ñoom ñooy lekk ñax yi ñooy lekk ci garab yi donc dañuy tax ñax yi du fees foofu ba nga xam ne kenn du fu mën a dugg te day wàññi également feu de brousse yi mais mën nañu wax également que ne rabu àll yooyu ngay gis.

dañ ko war a préserver pour léguer ko aux générations futures dafa am valeur d'existence aussi gis nga oryx yi ñu lay wax dañ naan la amoon na fi mais dafa disparaître vers les années 1850 am na ñuy wax 1914 dafa disparaître comme eh, espèce yu bëri ah xam nga àll yi amoon na ay ay euh, kéwél amoon na ay njamala mooy euh, euh, njamala ci ci ci ci ci wolof mooy girafe il y a rabu mais xam nga euh, nit moy rabu all parce que rabu Ali yi ci forêt yi ci alam bi bu nit day di ville di défar ay village di défar ay yoon ñom dañuy reculer reculer ak buñ ci ne dañ nit di pour diko dundé donc lolu dafa tax rabu disparaître légui oryx dafa disparaître ñu phase de réintroduction c'est-à-dire pour l'instant Afrique Sénégal euh, Maroc parc euh, Souss Massa euh, Tunisie parc Boudema et fi Sénégal au niveau du du Ferlo. Il ne waruñu tax di jox yenn privé parce que n'importe quel privé moi ko war en mën a si c'est grave sax mooy privé bi ko jël ki ministre de l'environnement mais je ne moom dafa am fu ko parce que code de la chasse moo ko may. euh ma ne damaa contre ñu koy jox privé yi mën nañ ko jox privé yi comme Bandia comme ki comme euh, Fatala comme yenen privé yi mais pas jël ko ko xamné ni yow da nga né da nga am une ferme agricole bëgg xey def ko une réserve té dafa am surface bo xamné ni fi ngay yaré euh rabu àll yooyu dafa am surface bu mu war am. Si jëlee doon un exemple au Maroc nous enclos bi 1000 hectares nga jël bu Tunisie c'était 5000 hectares Sénégal si entre 600 et 700 hectares yow nga une petite ferme agricole parce que le ministre de l'environnement, environnement nga jël ay rabu àll ci métit man la mais fu mu toll nii ñun ba ñu demee si mbedd bi li ñu remarqué muy euh, nitu mbedd yi di environnemental yi ñun ñëpp manko nañu ñii dañuy def dénonciation ñii sax dem ba nar a plainte est-ce que plainte boobu dina dal. waaw xam nga affaire bi avant plainte bi sax dafa dafa ñaaw ci Sénégal parce que dafay yàq deru Sénégal xam nga Sénégal dafa am fuñ ko tegoon ci wàllu sàmm environnement quand même dafa am Sénégal ay charte dafa am code de la chasse am ay convention yoo xam ne nii Sénégal def ci tënku. La convention sur la diversité biologique nga xamné kuko signé da ngay wax di nga conserver biodiversité bi di nga une utilisation durable de ces éléments constitutifs et di nga def partage équitable des bénéfices avons signé convention buñu wax CITES moy convention euh, sur euh, le commerce international des espèces de flore et de faune sauvage bobu aussi ci article 1 bi Oryx dama bi dafa annexe autant pour moi ci annexe 1 bi Oryx dama bi da te dañ ne espèces yooyu dañ leen a war a protéger boo jëlee convention bi ñuy wax CMS mooy convention sur les espèces migratrices de faune sauvage boobu aussi ci annexe 1 bi ak ci résolution 3 2 4 dañ ciy wax waxi oryx dama c'est-à-dire dañ ne oryx yi pour nga prélever ko dañ koy tere waaye am na lu ñuy wax dérogation dérogation bi mooy par exemple à usage scientifique ñun université ñu ne dañ ciy def recherche ñu jox ñu wala nga ne c'est pour la reproduction ñom nak ci porox ndoll bobu lañ jaar defena c'est-à-dire que ne dañ koy yobbu pour continuer di ko reproduire ñom ci porox ndoll bobu lañ jaar mais taxul mu nek lu ñu mën justifier donc affaire bi euh, man duma duma du ne dara mënu ci am dara mëna ci am parce que même convention yoy nga xamne dafa tënk Sénégal mën nañ bind Sénégal pour laaj ko ay explication parce que légui information bi dem na partout ci aduna bi ñepp mom lañuy ñuy di ñu kaño te ñun dañu am fuñ tollon ci walu environnement moy lima la wax léegi ni wa professeur jërëjëf waxtaan bi amna solo te liñ fi génnee mom woné na né fi yow ak activiste ñu jotee dajal ak population yéen bokk xalaat parce que kaño bu ñuy kaño ñun tam metti na leen bu mu jaral leen ñu bëgg porter plainte. ñu ngi leen jox rendez vous si benen numéro sam sunu alam en attendant ñu bayilé nak expert bi. La conservation de la biodiversité est une préoccupation à l'échelle mondiale. C'est d'ailleurs dans ce sens que dans la génération des accords de Rio en 1992, nous avions au même titre que la Convention euh, sur les changements climatiques, qui est peut-être plus emblématique, beaucoup plus connue, celle sur la conservation de la biodiversité, à laquelle le Sénégal a souscrit et a ratifié la dire convention. Et c'est dans ce sens que déjà en 1998, notre pays a, élaboré donc son plan national de conservation de la biodiversité et la stratégie nationale de conservation de la biodiversité. Mais le Sénégal n'a pas attendu 1992 parce que déjà, dès l'époque euh, coloniale, euh, il y avait déjà un travail de mise en place de réseau d'air protégé dont l'objectif principal et la conservation de la diversité biologique. Nous avons avantage à conserver les espèces, qu'elles soient végétales, qu'elles soient euh, animales, dans le milieu naturel. C'est sera l'objectif. Et les, efforts de réintroduction de ces espèces visent, peut-être, euh, une première étape sera peut-être de les acclimater au niveau donc, de zones de réserve spéciale, comme celle de, comme celle de Gumbel. Mais à terme, nous devons réintroduire ces espèces dans leur, dans état naturel. Pour le cas pratique, pour le cas concret de, euh, de l'Orix, une première étape a été réussie à travers l'acclimatation dans la réserve de Gumbel. La deuxième étape consistait peut-être en fait à, assurer une meilleure acclimatation à Katané pour ensuite les disséminer sur l'ensemble du ferlo et dans une troisième étape, les disséminer donc dans la zone naturelle de, euh, du, du et du Sahel en général. Il y a plusieurs dizaines d'années assez inaccessibles dans le ferlo ou dans d'autres zones du Sahara sont devenues maintenant des zones de transit routier, sont devenues des zones d'habitation euh, à cause euh, avec le pastoralisme, etc. Et donc, qui font que ces zones sauvages sont maintenant de plus en plus euh, urbanisées, sont, de plus en plus humanisées et cela contribue évidemment à la détérioration donc des conditions de, vie de, de, ces, mbokk ces animaux là. mbokku yi juste pour joxe benn éclaircissement parce que si ngeen seetaanee suñu vidéo bi di ngeen gis ne amul benn yoon ku nga xamante ne mi ngi liggéey au niveau du ministère de l' environnement bu àttu moo ne def nañ si ay jéego ndax woo nañu ministre bi si boppam tontuwul dem nañu woote ki nga xamante ne moom moo yor cordination de la communication au niveau du ministère de l' environnement muy baaba Sène waaye moom it wuyuwuñu